Sénégal7.com, l'actualité en temps réel. Présente jotaayu émigré émission bu leen di jox yaakaar l'émission qui vous donne de l'espoir ndaw ñiy jël gaal gi di dem yoonu suuf. mbaa yoonu avion jafe-jafe yuy jànkonteel si yoon bi ngir mën a dem bitim réew Sénégal 7 TV moo leen di dëgtal jotaayu émigré yi ngir mun leen jox espoir si réew mi ak si Afrique jafe-jafe yi xale yi di tund di am mbégte contentement di leen dalal ci émission jotaayu immigré yi euh, comme niñ koy defee nag saa yi su ne xam ngeen ne liggéey bu euh, réalisation bu jotaayu immigré yi dafa am liggéey bu mucc ayib ak liggéey bu am am solo boo xamante ni euh, ñu ngi koy amal nag ci diwaanu Sénégal ndax yàggul dara jóge nañ yoof dem Bargny jóge Bargny demaat fi nga xam ne également moom moo di Euh, fële euh, sa diwaanu euh, Tëngéej ak diwaan yu bëree bëri ah waaye xam nga dellusiwaat nañ fii si bar Bargny ngir rek mën leen ko joxaat tey nag ñu amaat beneen gan boo xamante ni moom tamit victime la waaye également rescapé la si li xam rek moom moo di benn convoi bi jige fii si Sénégal ngir mën a teer ji fële sa diwaanu Espagne moom la ñu toogal tey ma bàyyi ko mu nuyoo présenté wu su ko defee ñu waxtaanee jaar-jaaram si gaal gi soxna si maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga jàkkaarloo caméra bi nga nuyoo ñu lay si jotaay émigré yi si émission si maa ngi nuyu waa àdduna bi yëpp. Mm-hmm. jox ku ne sa tur ak sa sant. Mm-hmm. maa ngi tudd nday faatu Kebe. Mm-hmm. dëkk Bargny. Euh, Ndeye Fatou Kebe ñu ngi lay euh, gërëm bu baax a baax si euh, jotaay gi le ñu fas yéene waxtaan ak sa yoon bi nga xamante ni jëloon nañ ko mën nañoo xam yoon bi bi nga koy jël boobu ban année la woon. waa 2023 la. d' accord si année bii nii la 2023 bi. donc ban mois la. octobre octobre alors loolu kon yàggul un mois la def. yàggul d' accord. alors euh, dinañ fas yéene waxtaan ak yow si gaal geeg yooyu mais laataa loolu bëggoon nañoo xam aussi euh, lan moo la motiver woon euh, ba tax rek nga bëgg a jël gaal wala nga jël ko dem. Ah, gaal gi bi ma koy jël dama jëloon intage boo xamante ne si man maay taaw. Mhm. te sama papa dafa teel a génn àddina. Mhm. bàyyi ma fekk sama yaay sama yaay am beneen jëkkër bàyyi ma fi ma yor samay raq. aussi sama maam bu jigéen yor ñu ak sama benn bàjjen ma xam ni sama maam jaayam demeewul noonu te man maay taaw te mesure naa te jànguma te maa ngi liggéey gis naa samay moroom di dem di yegg mm-hmm. ma ne naa fas jom takk sama ndigg dem mm-hmm. yàlla lu mu dogal baax na mais yàlla dogal gaal gi ñu duggoon yàlla def ko mu yegg mm-hmm. ñu wàññeekuwaat ci alhamdulilah rabbil alamin loolu maa ngi sant yàlla bu baax d'accord xam naa laataa ñuy ñëw si fond bi dinañ fas yéene euh, waxtaan si li nga wax comme ni nga ko waxee euh, nee nga sa yaay euh, dafa amaat beneen jëkkër dem bala fi suñ la déggee maanaam sa yaay daf la abandonné wala nu mu demee noonu. déedéet. Mhm. pas abandonné sax. d'accord. mais dafa am jëkkër dem sëyiwaat. ah d'accord dem sëyee dafa may bàyyi sa samay maam. d'accord mais abante wu ndax chaque jour ñu ngi gisee. d'accord ndax soriante wuñu fii rek la. Mhm. du ma tëdd ci lal te dew ma fa. Mhm. noonu laa ko mën a waxee rek. c'est important il mm-hmm. fallait que aussi ñu def précision pour ñu ñuy seetaan aussi mën a comprendre mm-hmm. alors euh, beneen bi nee aussi da doon liggéey gis say morom di dem euh, nga am intention pour dem euh, liggéey bi nga doon liggéey aussi est-ce que mën nañoo xam ban façon liggéey la woon waaw resto la d'accord si restaurant waaw ci restaurant la mm-hmm. lu tax nga bëggoon bàyyi seen liggéey bi yow tamit pour dugg si gaal gi non gis samay morom di dem rek di daan doole foofu di jàppale seen waajur ak mais liggéey bi nga doon liggéey si si restaurant bi dafa doxutoon dafa amutoon xaalis wala lan la woon. ah liggéey bi duma ne la am na wala amul. Mhm. ndax liggéey moom lépp looy liggéey rek dañ si war a sant yàlla. amaana nag boo liggéeyee weer weer dee li si mën a faj ak faj say besoin ak say rakk ak yooyu noonu. du demee noonu te ñun jigéen dañoo bëri ay besoin moo tax may naa. mën nañoo xam ñaata ñu doon fay par mois. ah loolu moom bëgguma si sax d hmm. <laughs> changer le débat. <laughs> d'accord amul problème alors euh, nga bàyyi sa liggéey euh, bëgg a jël gaal pour dem euh, dem bi naka nga ko waajalee woon ban moment nga toog rek nga jékki-jékki xalaat nan laa war a mën a def ba tey uti connaissance pour dugg si gaal ki mën nga ñu nettali aussi naka nga ko doon waaje mhm. dem bi dafa am benn jour ma toog ak sama benn bàjjen mhm. léegi mu toog ak man ka man de bëgg naa dem mais aw paas moom mu ni ma yow caaxaanoo man ko déedéet caaxaanu ma man bu ma amee paas damay dem. ndax sa bàjjen moo la wax loolu. waaw d'accord ndax man samay moroom ñi ngi dem di yegg. Mhm. te amaana ñooñu dem noonu ëpp ñu ma jom. te man mhm. liggéey rek laa xam. Mhm. léegi mun ma waaw léegi ma taxaw ma xalaat si xam ma am naa ay connaissance tamit ma génn am ku ma waxal kook ne ma amul problème naa la boole ci benn gaal. d'accord ne ko ah mun ma waaw. kooku la ki la wax ne dinaa la boole benn gaal. kooku noonu sama xarit bu yàgg la. ok sama xarit bu baax bu yàgg ci man la. Mhm. d'accord mais bi nga ko waxee sa bàjjan euh, sa bàjjan euh, découragé wu la wala mu wax la ne non bul ko def ak yoonam. non ndax man sama bàjjan bii ma lay wax nii. Mhm. moom def maa bëgg ca man xam naa loolu. ok moom bu du woon loo xamante ni si du loo xamante ni jubul. Mhm. du ma si dugal mais xam na ni lii tawata bu ma si demee bu fekkee damaa yegg incha allah rabbin ñoom duñ ko réccu ndax man damaa bëgg sama bàjjen boobu. d'accord mais sa bàjjen boobu rek ak sa xarit boobu nga wax ñoom ñaar rek nga ci jotoon a waxtaan. ki nga xamante ne si moo la indi fii muy Sali. kon Sali moom tamit yëgoon na ne. waa yow tamit bëggoon nga Sali moog sama yaay ay xarit lañ du ma ni sax ay wujju peccor ga lañ. d'accord mais dama ay doomu nday lañ. d'accord mais tant Sali moom dama koy ñaanal yàlla rek. ok ndax moom bi affaire bi mu ko yëgee. Mhm. def ma encouragé na bis boo demee Kabe Demba yàlla na la yaa teg ci yoonu jaam. Mhm. man ko amiin di ko xamal tamit ma fàttali ko ne ko man bi su ma yeggee yéen duma ma leen mës a fàtte mook sama bàjjen bi ñuy wax Binta Kebe. d'accord boobu fekk na départ agoo. yéen ko doon waxtaan si moment bi nga koy wàcc. waaw ñu koy waxtaanee noonu après bi ma demee ba waa ji ma waxal noonu mu d'accord si laa commencé def samay bagage ak affaire yooyu waajal. Hmm, bagage yi ak waajal bi lan la woon bagage yi lan la woon yére yoo doon sol nga doon jënd wala ay lekk wala lan la woon. wala ay xonjam ak yooyu la. waaw comme dem seet sa yaram xool yoon yi ba xam leer na wala leerul rek. Hmm. Mhm. sa yoon bi jotoon nga kaa seet avant ngay dem. waaw jotoon naa ko seet moom. da nga demoon si benn maaraamu seetal. waaw bi nga demee lan la la wax. mais daf ma jox ay sa sangaay na ma sa yoon leer na génne ma ay sarax ma saraxe ko. Hmm, loolu yëpp jotoon nga ko def. waaw jotoon naa ko def. d'accord euh, psychologiquement euh, bi nga koy waajal sa xel daloon na. ak euh, ñiy ñàkk seen bakkan si géej gi yeeg yooyu noonu nga nar a jël surtout nga nekk jigéen aussi bëgg a dugg si gaal ndax boobu psychologiquement yow pare woon nga pour dem. comme ni ma lay wax rek. Mm. man dem bi pare woon naa si ndax dama amoon yaakaar. Mm. ne damay yéeg d'accord du ma la nëbbu. Mm, da nga amoon yaakaar. ne da ngay yegg waaw amoon yaakaar damay yéeg ok. d' accord alors euh, dem bi ku ne xam na ne aussi euh, du gratuite parce que bu ñuy dem dinañ cotiser dinañ dinañ jënd ay kii souvent gaal gi aussi euh, capitaine bi dina laajte paas ak yooyu noonu mun nañoo xam bi ngay dem yow ñaata nga joxe woon pour dugg ci gaal gi. non man bi may dem paasuma comme ni ma la wax rek man dañ maa may place. ah paasoo dañ la may place. waaw man paasuma dañ ma may place. d' accord mhm. kan moo la may place boobu. ah sama benn góor rek bu baax rek ci man. moom tamit ci gaal gi la bokkoon wala dafa la may place ak te moom demul. non moom dem na. Mhm. Mhm. yéen a bokkoon gaal gi waa mhm, moom sa xarit la woon. waa sama xarit sama góor bu baax la. ok euh, ñi nekkoon ci gaal gi aussi seen paas yi euh, ñaata la demee woon. ñooñu ñooñu moom xam nga lijjantiwuma leen. ok yow moom comme may nañ la place rek mënoo lijjantiwutoo lijjantiwuma keneen sama bopp rek. ok mhm. mais avant ngay dem xamoon nga ne may nañ la place wala dangaa dem ba jour boobu ngay door a xam ne ne am nga place. non avant may dem man wax nañ ma may nañ ma place ma préparé samay bagages. ok après fan yooyu ma di ko woo téléphone di ko woo téléphone pour rek mu leer. Mhm. mais mu ne ma nday faatu man kaa man place bi leer na. ok préparé sa bopp rek ma soog a tamit. xamal sama bopp ni man may nañ ma place. d'accord mais souvent convoi yi laataa ñuy dem dañuy gis ñi tëgg gaal gi aussi euh, dañuy nëbbatu parce que si nëbbatu gu métti lañ nekk kon xam nañ aussi comme yoon bi c'est illégal euh, nëbbatu googu aussi naka ngeen ko doon dundee xam ngeen ne euh, jàpp ngeen bés pour dem mais naka ngeen ko doon waajee si secret ak si teey ak dal. mais borom gaal yi ñoom. Mhm. ba léegi mënuma wax ci ñoom dara. Mhm. ndax ñoom buñ nëbbatoo ñu xam nga ñu duñ leen gis. ñun duñ xam fan lañ nekk. Mm. ñun dem rek la ñuy gis. d'accord man moom dem rek laa gisoon. Mm. man boroom gaal ak ki tëgg gaal capitaine bi ñooñu ñëpp man mënuma la wax kii la wala kee la. c'est clair. Mm-hmm. loolu yaakaar naa ne leer na alors léegi nag euh, def nga sa say préparation comme ni nga ko waxee. dem nga si séeréer si Mara ñu seetal na la yoon bi leer na nga def say sarax ak yëpp euh, bi ngay dem jotoon nga jënd ay yëre sedd wala jotoon nga jënd ay lekk yooyu préparer sa bopp aussi. ndax xa nga yëre sedd moom ci jigéen yaakaar naa doo ko jënd. ok ko jënd. ah ci jigéen. Hmm. yow boo nekkee ni ko xam da ngay liggéey. Hmm. di sol di simeeku. d'accord yaakaar naa yëre seet doo ko doo ko manqué. Hmm. man bi may dem sama yëre seet damaa sol sama blouson fekk na maa jënd ay blouson yooyu noonu. Ah, jënd sama blouson bu bleu am bu ma dugal sama biir saak. ak samay kawas yooyu yëpp ma préparé. bi may dem moom jënd naa ay tàngal. yoo xamante ne si pour boo neeree wala yooyu. d' accord yooyu yëpp da ngeen koo waajaloon seen bopp si neer rek yooyu noonu. waaw d' mais laataa ñuy sori bëggoon naa xam ndax bii mooy sama première fois may dem ci gaal. d' accord mhm. alors ñu ñëw nag si seen départ bi boobu lépp yemm xam ngeen bés bi ngeen di départ jàpp nga bés bi ngeen doon départ. waaw samedi lañ départ. ah bésu ngeen départ. Mhm. mais jàppoo date bi quand parce que nee nga mois d' bi la jàppoo ban date la ban jour la woon si octobre. le 9 le 9 octobre. le 9 octobre d' accord ban heure la woon boobu départ bi. 4 heures. 4 heures du matin. non non 4 heures ci ngoon. mooy 16 heures bi. Mhm. alors départ bi fan la woon fu ngeen ko déparé. Sendou. ah Sendou. Mhm. d' accord Sendou mooy foofu la gaal gi war a déparé pour dem Espagne. non gaal gi foofu la taxawoon mais gaal yi ñuy yaale ci fii lañ taxawoon tefes gi nii rek. ah si tefes waaw loolu gaal yu ndaw ñoo ñu yóbbu si gaal gu mag gi séendu. d'accord alors yaakaar naa ne ñëpp xam nañ luy yaale mooy gaal gi. gaal bu yóbbu si gaal gu mag di leen xaar. Mhm. alors bés bi ngeen di départ wax euh, gi nag mm. gaal gi la yàlla na la si gaal gu mag moment boobu aussi naka nga ko doon dundee. waaw ndax ñun 4 heures lañ dem ci gaal gu mag ga. d'accord léegi ñu toog fa toog fa toog fa am ñeneen ñu doon xaar tamit. d'accord par convoi la quoi dañuy jël ñi yóbbu ñi. nit ñi di xaarante. mais avant gaal gi di départ. 6 mhm. heures jot na ba timis. d'accord 18 heures. waaw ok. waaw d'accord kon jëloon na 2 heures de temps. pour mhm. ñëpp mën a ñëw rejoindre. mais gaal leen di yàlla par ñaata personne lay jël. par deux rek. ah par deux. par deux la waaw. d'accord alors mais seen gi quand même euh, bi ñëpp dajee tey booy xayma nombre bi yëpp maanaam lim bi ñaata lay war a toll ñi demoon ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. ah bari gaal gi moom boo xoolee <laughs> gud ba gud nga xam ne bëri na mais xam nga doo compter nit ñi. matoon na san na wala deux cent ak yow. ëpp na cent. ëpp na cent. Mhm. na deux cent. bu ko tolloo si ni ko gisee ni ma ko gisee. mat hmm. mhm. na deux cent si ni nga ko gisee. waaw. mais bu ko matul tamit ëpp ko de. d'accord alors euh, bëgg nañoo xam aussi gaal gi ñan ñoo si nekkoon ay góor kese la woon wala jigéen ñi aussi ndax bari woot nañ ak yooyu noonu ak xale yooyu noonu loolu nga ñu si mën a indi ay leeral. waa gaal gi moom am nay jigéen am nay góor. Mm-hmm. am tamit ay xale. d'accord mm-hmm. jigéen ñi matoon nañoo ñaata aussi. jigéen ñi mat nañ ay sept huit. ay sept ak huit. Mm-hmm. d'accord xale yi aussi bëri woon na. non xale yi bëriwuñu woon noonu. ndax na ay mag parfois ay genre pas ak yooyu. waaw am na fa moom. bëri woon nañ. waaw bëri woon nañ nag ay jeunes ni nga xamante ne si sama moroom ñoom papa la bari woon nañ fa. bari woon nañ trop. Mhm. d'accord alors euh, bi ngeen demee si gaal gi nag mooy bi gaal bi leen war a yóbbu yéen ñëpp ngeen toog si biir gaal bi ndax boobu daf ngeen benn débriefing maanaam benn waxtaan boo xamante ni euh, daf ngeen ko seen biir laataa gaal gi di daw. waaw ndax avant gaal gi di daw. Mhm. am na ku taxaw ne képp ku si yor sa téléphone sa téléphone na nga ko fay. Ah. te ngeen nekk ci jàmm ñu dem ci jàmm yegg ci jàmm kenn bañ fi réeroo ak moroomam. d'accord. léegi ñun ñëpp d'accord. Hmm. d'accord kooku moom moo def benn wax leen ordre yi ci biir gaal gi. d'accord bu fekk ne aussi yóbbu woon ngeen ay lekk ak ay naan ak yëpp comme ni nga ko. waaw waaw. Hmm. lekk yi bari woon na. gaal gi waaw. Hmm. bari woon na ay lekk mais am na ñoo xam tamit dañoo indi woon seen lekk bopp. jëndaal seen lekk bopp pour ci lii bi. seen lekk bopp daal ci saak bi. d'accord alors euh, bi gaal gi départ bésu samedi la. Euh, dix huit heures la gaal gi départ quitté nga Sénégal yaa ngi dem. lan moo mhm. nekkoon sa xel boobu. waaw bi gaal gi départ sama xel mooy nañ ma ñaanal ma yegg ci jàmm rek. Mhm. loolu man loolu rek laa doon ñaan. Mhm. sa gi mooy nañ la ñaanal rek nga yegg jàmm. d'accord ba bi ngay départ aussi boobu say famille yëg nañ ne aussi départ nga. waaw ndax man dama njëkk a dem. fekk ne gaal gi ma naroon yóbbu. gaal googu dem. léegi ñu boole ma beneen gaal beneen gaal boobu tamit dama toog ci këram am fa ñaari fan de gaalam soog a départ muy gaal gi ma lay wax nii. Hmm. muy soog a départ. Hmm. Mhm. d'accord bi gaal gi dawee nag ba mu ba ngeen xam ne génn ngeen zone senegal boobu sori ngeen euh, ba tey seen nekkin ci gaal gi na la demee woon. waa nekkin gi moom nekk na nekkin bu rafet. Hmm. ci biir gaal gi. mais gaal gi moom fa dëgg fa neex yàlla premier guddi gi. si laa jooyee ndax xam ne mosuma xam gaal te mosuma xam fanaan àll yooyu fu lëndam ak yooyu si laa jooyee nag. xalaat suñu waa kër lan moo taxoon nga jooy xalaat suñu waa kër xam ne lii mosuma ko def. mosuma mhm. fanaan ci géej ak ci ndox. Mhm. ma xalaat ak tamit sama maam li nga xamante ne si tàgguma ko tamit dama bëgg sama maam. Mhm. sama dama ko bëgg ba tax na tàgguma ko am naa ressource pour tàggu ko. d'accord mais boobu fekk na lëndëm na mais guddi géej gi sa première guddi si gaal gi naka ko doon dundee. métti rek. Mhm. ndax gaal gi premier bi ma jooyee foofu benn xale bu jigéen bu ñuy wax moom euh, moom nekk fa naa ma may sama ak affaire yooyu daal taxawuma ok mais kooku moom ma jàppale ne man day faat ma ne naa mun ma lii dara. Mhm. dañ ñaan yàlla mu yegg ma ne man lii dama ko mësul xam sama àddina. Mhm. dëkk naa ban ñi mais man sax mënuma feey mais bëgg a jàppale sama waaju ak samay famille moo tax may def lii. mun ma lépp dina baax. kon jotoon ngaa am ñoo xamoon ci biir gaal ñoo xamante ne say xarit lañ ci biir gaal gi. à ki ki la ki la may place. bi ma demee moom xale jigéen ñun ñëpp dañoo nekk benn. Ah, mais mais xamante wu rek quoi foofu ngeen xamante. waaw ba xamante wuñ mais foofu lañ xamante. Mhm. Mhm. d'accord wax nga ko euh, première guddi gi euh, nga jooy parce que ba nga sa maam te ko bëgg mais aussi euh, géej gi guddi na lëndëm nag yooyu noonu bi ngeen dawaatee ay bés ay bési bés bés ngeen nag sori lool moment boobu aussi. si lan nga dund loo xamante ni métti na la sa biir xol wala loo xamante ni jommal na la jaaxal na la si biir géej. waaw bi ñu demee ba mu sori sori noonu. Mhm. bi ñu xëyee suba ñu xëyaat suba noonu ñu ndékki. muy muy ñaari fan yu ngeen daw si géej. waa bi ñu ndékkee. Mhm. ay 4 heures ñu xam ci heure yi rek. ma daal toog benn xale bu jigéen ma ni ko man xaw ma lii. comme ndékkee ay mbiskit ak yooyu noonu. Ah, ay mbiskit ngeen doon lekk. tàmmu ma lii. Mhm. moo tax xiif man xaw ko. moo tax ma de ma nii dem naa te neer bi jàpp na ma mënuma mënatuma lekk. Ah, boobu yaa ngi yaa ngi daan wëcceeg yooyu noonu. Hmm. léegi kooku jox ma garab yi nelawal ma nelaw ba yeew ñu jox ma benn couscous añ yi daal. Hmm. ma daal di lekk ma lekkee ma ni man xaw ma si ku jigéen man ka man xaw ma lii. Hmm. bëgg daan sama doole jàppale samay famille moo tax may def lii. d'accord léegi kooku ne ma non non lépp dina baax muñal rek. foofu tamit jooyaat naa ndax xalaat naa tamit suñu waa kër ni ma neen bàyyee te ñoom xamuñ ci lu ma nekk. Mm-hmm. affaire yooyu. mais kon mënuñu wax ne kon demoo ba si biir nga tàmbalee rëccu départ bi nga départoon rëccoo ko woon. non rëccu mu bi ba si biir. waaw ndax man ni ma demee ba si biir. Mm-hmm. damaa daal di ñoom tamit ñu dalal ma. Mm-hmm. firi. xam ne lu am yàlla la. d'accord euh, ñu ñëw si condition gaal bi ndax nee nga lim bi ëppoon na 100 aussi boo koy xayma xaw na jege 200 wala mu mat ko sax euh, ndaka la demee woon condition yi ni ngeen ko doon dundee si biir géej aussi si biir gaal gi ak nu mu xatee ak yooyu noonu ndax moment boobu aussi amoo woon coono ak ay jafe-jafe la première fois dugg si gaal dem. non non ndax ñun jigéen ñi fi ñu fi ñuy nekk noonu. Mhm. du ñu gis sax ndox. ah bon amaan dañuy tëdd. Mhm. di toog après ñu remplacer ñi xamante ne si dañoo yendu fanaanee toog du ñu garder ñu jox leen bëccëg gi ñu tëdd ñun ñu toog. d'accord léegi bu ñu demee ba xam ne heure yii rek ñu daal jëlaat suñu dal tëdd. Mhm. waxtaan ka fooree. Mhm. d' accord kon maman boobu dañuy awalante am na ñoo xamante ni dañuy. waaw góor ñi voilà. dafa am góor ñoo xam ñun tëddee ñoom ñooy toog ci bras yi nii. ñu mhm. xool d' ngeen daw aussi di sori boobu daw ngeen ñaata jours aussi ngeen sentir que ne kat léegi ngeen àgg Espagne ak yooyu noonu seen xel commencé ñëw wala seen xel. vraiment ngeen commencé am joie contact. c' xam nga ñun jigéen ñi dañoo dañ kumpa. ñun ñu toogoon ñun ñëpp buñ biñ dawee ba am trois jours. Mhm. après xal bu góor bu toog ci ñun dañ lay laaj yow fan lañ toll. ok da ngeen doon laaj. waaw bu ko defee ñii dañu toog naa ñu dañu leen amaat sept yooyu noonu dañu mbal ak daal. Mhm. léegi am koo xam ne si ñëw man ko yow fan lañ toll mun ma leen ñu suba wala gannaaw suba ñu dugg. d'accord boobu daaw ngeen ñaata jours si géej gi bi ngay laajte bi ngay wax ne fan lañ toll. boobu am nañ quatre jours ci jour ci géej gi. quatre jours. Mhm. day faat nettaluñu quatre jours si biir géej nan la mel. ndax égal est-ce que c'est la même chose que nga dugg oto tey di ko daw 4 jours. ah géej moom metti na mettiwul. Mhm. ndax ku si dugg rek moo la mën a wax li si am. Mhm. amaana nag xam nga géej neexul. Mhm. nga nekk ci gaal. toog benn place doo bouger doo dem fenn. xam nga loolu neexul. mu ngi noonu. d'accord bëri na ñu si bëri buñ leen di laaj dañuy wax ne euh, dem nañ ba zone Mauritanie wala dem nañ ba jege Maroc ñu jàpp leen ñi leen. Euh, yow seen cas euh, nan la demee woon dañ leen a jàpp indi leen wala àggoo leen Espagne wala jot ngeen àgg Espagne. ah ñun moom fa dëgg fa kenn jàppuñu. Mhm. premièrement bi ñu fanaanee ba ni ñu subal. Mhm. allah dañuy tànn ili ñu dem ñu xayaat suba. Mhm. ñu ne bala ñuy yegg foofu de xam naa ay timis ak yooyu noonu la ñuy teer foofu bi ñu noddee timis daal ci maanaam. bi ñu noddee timis daal si la am ñu doon xuloo foofu. ci biir gaal gi te foofu noonu ñan ñoo doon xuloo si biir gaal bi mais xale yu góor yi rek ñoom seen biir la waaw d'accord te avant boobu sax mm-hmm. premier fan yooyu yëpp bu ñu dawee bu timis xasee jot dafa am ñaar ñuy histoire ci biir gaal gi waaw ci biir gaal gi nag to ñaar yooyu dëmm yu nekk ci biir gaal gi moo leen di jaxase day jaxase seen xool yi ba tax na ñoom ñuy xuloo nga ne dëmm yi nekk ci biir gaal gi kon seen gaal gi dafa amoon ay dëmm ci biir waa am na ñaar moom d'accord bëggoon naa ñu taxaw foofu parce que bëri na si ñu ñoo xamante ni bu ñuy waxtaan ak ñoom dinañu wax ne euh, loolu ñoom dañ koy dégg gëmuñ ko wala amul euh, yow nga dund ko nga ne am na ay dëmm lan nga ñu mën a wax loo xamante ni vraiment kat lu li ngay wax ni yow dund nga ko te vraiment lu weer la. c'est que ñun dañoo gis preuve moo tax. ok ndax euh, bi ñu demee bay waaj a dugg Espagne nii. Mm-hmm. timis di waaju jot rek. léegi si dañ gis ñaari xale ñaari xale yu góor di di xuloo. d'accord. Mhm. léegi xale jigéen ñi commencé daanu am boroom xam-xam tamit bu nekk ci gaal gi ràññee nit ñi tamit. Mhm. Mhm. dëmm bi nan ngeen def ba identifier ko da ngeen def dafa doon def ay gestes si biir gaal bi di soppaleku di yuuxu wala lan la doon def. nan ngeen def ba identifier ko ne li ngeen di wax ne ko dëmm. ndax bi mu daanalee benn xale bu jigéen benn xale bu jigéen moo wax. moo wax. Mhm. léegi bi mu waxee benn benn grand dem jëli ko fi mu toog ñëw di ko dóor nar ko jëli léegi ñoom ne ko noonoo noonoo bàyyi leen ko bàyyi leen ko ñu am luñ ko def. Mm. Mhm. léegi comme ñoom déggoowuñ ci kàddu te gaal gaa ngi daw léem am ku jóg ne nii comme gaal gi day daw te amuñu jàmm. nan leen teggi nan leen wàññeeku. Mm. dem teer feneen. Mm-hmm. waaw. ngeen wàññeeku pour dem teer feneen. waaw. léegi ñu si gaal gi xam naa tamit dañoo ragal. Hmm. daan na leen wàññeeku ñu ñibbi waaw. léegi ñun jigéen tamit ñuy kaas suñu droit ne duñ ñëw ba fii ba heure bii ngeen wàññeeku noonu ci zéro. oui parce que boobu daaw ngeen suma juumul cinq jours wala quatre jours. ba yegg sax. ok boobu ñaata ñaata jours ngeen daw totalement. boo daw nañ quatre jours cinq jours bi dañ waroon a dugg. cinquième jour bi ngeen waroon dugg Espagne. waaw donc moom suñ la déggee kon li nekkoon si biir géej gi si biir gaal gi. moo taxoon jotu leen ak Espagne. jot ñu yegg Espagne loolu lan lañ ko mën a comprendre aussi ngeen dem ba jege Espagne eh, kenn ku nekk si géej aussi tere leen ko. mais boobu histoire bi bari na te ku ne instant yi sa bopp nga tal. mbaa amutoon ay xeex si biir gaal beeg yooyu noonu. ndax xam nga xale yu góor bu ñuy histoire histoire bu yàggee. Mhm. kenn ñun xale jigéen mu xam nga mënuñu téye kenn. ok te xale yu góor yi bari nañ. ñii dañoo toog jàpp seen ñaambu ñii di histoire fii mhm. léegi ñi xamante ne si ñoom ñoo diriger gaal gi. Mhm. daal comme noonu demee ne noonu nañ leen wàññi suñuy suñu suñu lii mhm. suñu gaal mhm. buñ demee teer fenn léegi am ku ne nii bëgg a féexal suñu xol ne bu ñu ko teeree bu subaa ñu déparaat mhm. léegi ñun tamit xam ñu dañoo neex a nax ñu tamit ñaari d'accord léegi nag kenn ci ñoom daal ni kon nañ teer noir di boo ah, dëkku naar bi ngeen wëññeekuwaat waaw ñu wëññeeku nag. d'accord léegi mm-hmm. baal ma nga teg foofu sa baaraam laataa ñuy ñëw si wëññeeku bi euh, parce que nee nga gaal bi amoon na ñaari niti guddeeg yooyu noonu mais si biir gaal gi yow bi nga demee ba découvrir que ne euh, li li ñuy wax nii am na dëmm la yow naka nga ko doon dundee ndax boobu sa fit demut ndax regretté woo aussi di nga duggee si gaal géeg yi nu ne mel ak ban période la la leen doon sonnaleeg yooyu noonu. guddi gi. par guddi gi bu ñu xasee ba timis rek. Mm-hmm. du ñu may jaamu da ngay gis ñaar ñi werante bu ñu xuloo ñoo xam ne ñoom moo leen jaxase mais man bi ma demee ba ràññee loolu tiit naa. Ah. mais xam ne ma sant yàlla nag. sant sama ñaari waajur. ak sama maam ak sama bàjjen mi xamante ne si ñoo ma ñaanal bi may dem. ndax ñaanu waajur yaakaar naa ndam la ci jigéen. Mhm. Mhm. ñaari dem ñaari dem yooyu ngay wax ñu jégalu si kàddu gi ah. euh, ay góor lañ wala ay jigéen ah kenn ki nee nañ góor la kenn ki nee nañ jigéen la. Mhm. ñooñu jot nga leen gis jot nga leen a xool nii si biir gaal ah gis nañ leen kay ndax ñooy yendoo ak ñoom. ñoom ban comportement ba bi nii lu ñuy def ban comportement la kay def dara dañuy toog ñun nii nice mm-hmm. mm-hmm. d' accord mais moment boobu aussi defoo leen benn effort pour jéem a jéem leen def dara wala genre que souvent yooyu bu ñu koy gis si gaal gi gis dañ leen di dóor wala ñu leen a sàndeeg yooyu noonu ndax parce que bëccëg gi ñoom duñ def benn benn dara duñ def benn mouvement boo xamante ne si ñi dañ leen di xàmmee ah. mais bu dee guddi gi nag bu ñu histoire ñoom yàgg nañ histoire te foogawuñu woon loolu mm-hmm. mais bi ñu nee bay waaj yegg na si lañ xamee ni ay dëmm am na ci kii. ah d'accord kon commencement dem bi boobu jotoo leen koo xam faw ngeen dem bay waaj ak ngeen door a xam ne carrément gaal gi lii am na si. Mhm. ok noonu lañ def moom. d'accord ngeen ngeen retourné fële sa douane euh, Nouadhib kon demoo leen ba àgg dawoo ba àgg Espagne. non non jotuñu egg waaye ñu ngi ci biir Espagne ci ndox mi sax. ok mhm. d'accord ba ñun ñu jug sa di xool seen ndox mi noonu. Hmm, mhm. seen ndox mi. alors nan ngeen def ba retourner maintenant nag ba ñëwaat Sénégal nu mu demee. ah gaal gi moo ñu indiwaat. gaal gi gaal gi ngeen duggoon pour mu yóbbu leen Espagne. moom moo retourné waat waaw dawaat ba Sénégal. moo dawaat ba Nouadhibou teer foofu. boobu boobu fekk na seen lekk yi jeexoon wala jeexutoon. non fa dëgg fa neex yaa suñu lekk yi nag moom jeexul mais man moom xam nga loo xamul xamoo ko. Mhm. gaal gi xiif naa fa ndax xaw ma lekk yooyu noonu. kon lekk boobu mënoo ko lekk. Mhm. loolu yaa ngi doon dama doon bës nii rek mais lekk yooyu mosu mënuma ko lekk. Mm-hmm. xiif rek. Mm-hmm. Mm-hmm. mais muñ rek xam ne ku bëgg a tekki foog nga sonn. d'accord alors yow nga dem ba jege Espagne wëññeekuwaat bi ngay wëññeeku aussi euh, franchement wax ma rek lan moo nekkoon sa xel ndax yow boobu dem nga ba tim Espagne te objectif bi nga amoon mooy dugg fa. non bi may wëññeeku sama xol jeex na. ba wax ki ma ki nga xamante ne sii moom ma doon wax sama rakk bopp man ka man dama rus sax demaa suñu kër. mun ma ci la man ka ma rus naa delluwaat suñu kër mm. mun ma adire ah, lii du dara beneen yoon moom mooy dàq man ka man dama am keesa rus suñu dugg suñu biir kër ak nii mm-hmm. lii gàcce la ci man ok mm-hmm. boobu yow gàcc nga ko jàppee parce que jàpp nga ne daal liñ fi bàyyi yëpp daal boobu xel xalaatul nga wëññeekuwaat dem rek nga gisoon dem rek laa gisoon mm-hmm. ñaata jour ngeen dawaat pour wëññeekuwaat Sénégal waa bi ñuy teer nuwaat bu am nañ benn guddi ci géej gi bi ñu xëyee suba si lañ teere foofu. ngeen teeree fan ngeen teer. Nouadhibou ci géej gi. ci géej gi Nouadhibou. waa naka ngeen def ba agsi Sénégal maintenant. waaw dañoo dawal gaal gi. waaw. Mhm. kon au retour bi ñaata jour la boo koy jàpp. retour bi ñu ngi retour ay timis. Mhm. Mhm. léegi ñu fanaan ci gaal gi ba bës set xëy suba yegg foofu tamit ay guddi. ay guddi d'accord da ngeen a teer fi ngeen teerse bar ngeen teerse wala fan ngeen teerse. ba ba xam bari ñi lañ teere bi ngeen fi ngeen bi ngeen ñibbisi fan gaal gi fan la teerse dëkk naari la teer Nouadhibou boobu la teer Nouadhibou boobu après da ngeen nu ngeen defaat non di ngeen def ba ñëw ba ak Sénégal daal waaw bi ñu teeree foofu naar yi ñoo ñu jël si ah d' accord dañu ne récupérer waaw bàyyi foofu seen gaal gi waaw ok dugal leen fan suñu bagage hmm. léegi bi ñu naar yi jël si noonu ñun tiit nañ da xamuñu lan lañ te naar dañoo soloon ay tenue ah. léegi ñoom naar yi dañoo jëloon yóbbu ñu ci camp bi ci camp bi mhm. d' accord bàyyi fa seen gaal gi si biir géej. waaw bàyyi fa gaal gi ak machine yeeg yooyu noonu. d' accord euh, biñ leen si bi boobu lan leen defoon dañ leen jàppoon enquête den wala ñeen da ngeen faa dañ leen faa tëj wala nu mu demee ah, bi moom biñ fa demee tëjuñu ñu de mais li ñu def moom moo raw tëj. lan lañ leen def si camp ba. ndax foofu 6 heures ba 6 heures ngay lekk. 6 heures maanaam 18 ngoon ba ngoon. 18 heures ba 18 heures ngoon ba ngoon ngay lekk. mais Ndeye Fatou li ngay wax ni aussi euh, ku ko dégg dina dina am lu ko métti ah ba 18h. 18h ba 18h ngay boobu ñaata boobu dund ngeen ko ñaata fan. Kaaba Kaaba dañ fa fanaan xëy suba. ay 9h ñu ah. yóbbuwaat ñu beneen camp. waaw beneen camp boobu ñu fanaanaat fa. xayaa suba ñu yóbbuwaat ñu feneen foo xamante ne si fi lañ war a dem tampon wan ñi dëkk bi valabo fi ndax duggoon nga fi affaire yooyu daal. Hmm. bu ñu xayaatee suba foofu ñu demaat après ñu yóbbu ñu Rosso Sénégal. ok kon au total def ngeen suñu la déggee def ngeen trois jours. Mhm. Nouadhibou ci camp ci camp bi waaw mais 18h ba 18h ngay lekk. d'accord nan ngeen doon lekk boobu. ceebu ganaar rek. ok mais 18h ba 18h rek ngeen koy lekk. waaw noo ko doon dundee yow. ah comme sama morom ni ñu koy dundee rek. Mhm. ndax man sax au moins tene naa. Mhm. ndax am na sama beneen morom jigéen ñoo xamante ne si ñoom ànduñu woon dañ dañ àndoon seen bopp ñoom man ma ma sama oto boobu fees léegi ñu dugg ma ci oto xale yu góor yi. Mm-hmm. léegi xale yu góor yi man kese maa si nekkoon ci jigéen ñi ànd group boobu. Mm-hmm. léegi groupe jigéen ñi xam ne man ak ñoom ñoo bokkoon gaal. ñoom dañoo nekkoon feneen. Mm-hmm. ma ñu boole ma foofu. mais bi ñu demee ba Rosso Sénégal. ah foofu moom awma may wax foofu ndax foofu yàlla lekk naa fa ba lekk gi lekk sax maa may xale yu góor yi li ñuy lekk. ndax ñooñu fa dëgg fa neex yàlla bi ma yeggee benn naar bu baax moo ma laaj ndax xiif nga man ko xiif naa ndax Rose Sénégal bi ñu fa demee ma benn yoon laa lekk moo tax ma mel nii. kooku ne ma da ngay miir ma ni ko waa mu ma yow kay da ngaa animé da ngaa jeex sax après si la ma toogalee ci benn bureau ma toogalee comme ni ñuy wax naari yooyu nu affaire yooyu mm. tiit naa. Mm-hmm. léegi naar bi ne man naa ko jox sama numéro ma ne ko non non mm-hmm. la jox sama numéro. léegi mu récupéré téléphone yëpp ba mu des sama téléphone ne ma yow garder sa téléphone. après si laa gàddee sama téléphone bii. Mm-hmm. léegi bi ñu waxtaanee pare naar bi jox ma. naar bi ni ngeen doon waxtaanee parce que est-ce que dafa déggoon olof wala par lan ngeen doon waxtaanee. waaw na moo loon ñu enquête. ah d'accord mhm. d'accord. naar bi dégg na olof mais mais mais bu boobu nga wax bëggoon naa lan lañ lan lañ leen def dañu ne enquête. waaw dañu laaj wala enquête nañ ñu. ok lu tax ngeen ñëw fii. lu tax ngeen ñëw comme li ma la wax rek tamit loolu laa ko wax keneen keneen tamit loolu la ko wax. Mhm. loolu leer na après ñu euh, donc ñu daara leen fi nga xam moom moo di Mauritanie indi leen fi nga moom mooy Sénégal. waa bi ñuy demee nag ba sa Sénégal. Ah. ñu fanaan foofu ba set. Mhm. ay 6 heures. 19 mhm. heures 20 heures. si la ñu jëlee oto ñu dañuy dem fanaan Rosso Sénégal. bi ñu demee ba Rosso Sénégal xam nga bag bi moo ñuy indi. Ah. léegi bu ñu demee foofu ñu fanaan foofu. mais fi ñu fanaan mooy genre barrage rek la n'est-ce pas doo xam ngeen foofu. genre barrage lay doon genre lay doon ay giri. ok léegi ñun si lañ toog ñii toog toog ñi xamante ne si dañoo laal seeni i mbaaj ñi laal seeni i mbaaj ndax foofu dañoo joxoon ay mbaaj. Hmm. ñun jigéen ñi jox ñu ay yére ay kawas sarbet yooyu noonu. d'accord mhm. mbaa foofu dundoo leen aussi jafe-jafe. bi mooy ñàkk lekk gi rek. d'accord mhm. d'accord alors bi ngeen ñibbisee Sénégal aussi kenn ku si nekk dafa directement fi mu dëkk wala am ngeen feneen fi waa ñun bi ñu jugee Rosso Sénégal. Mhm. dañoo jubal si Sénégal direct. loolu ñu dugal dañ jox ay bus wala dañ leen a paasal kenn ku si rek ñibbi. non non ku sa mbokk moo lay envoyé paas. ah bon. Mhm. boobu nan nga def ba ñibbi si. ah samay ñoo ma envoyé paas rek paas bu seer sax ndax foofu noonu pour nga génn fa du caaxaan. dafa am loo fay da ngay fayaat foofu noonu wala nu mu demee noonu. waaw ndax oto bu la indi pour fii nii xam nga day sori. Mhm. da nga fay xaalis bu weex tàll la indi. te boo ñëwee ba fii tamit da ngay jëlaat oto yóbbul si buntu kër. ñaata lañ la envoyé woon au total. ah bari na de. Mhm. Mhm. ëpp na cinquante mille kay. dañ la envoyé woon. Mhm. d'accord boobu seen waa kër ñoom ñoo la envoyé pass. ma envoyé pass xam nga loolu metti na. d'accord alors euh, ngeen dund jafe-jafe yooyu yëpp ñibbisi euh, Sénégal. Euh, boobu jàpp nga aussi date bi ngay ñëw pour ñibbi seen biir kër ak heure bi aussi. waaw date bi moom jàpp ma ko mais jàpp naa heure bi. ban heure ban heure nga agsi fii. ay 23h. si guddi gi. Mhm. d'accord. 23 laa fi yegsi mais bi ma yegsee dama oto bi dama rusa sax wàcc fii sama kër yaay laa wàcc. da nga wàcc sa kër sa yaay fi mu nekk. waa léegi ki ma àndaloon. Mhm. laa yónni ne ko boo demee wool ma sama bàjjin mu jël si ma. ok ndax boobu rusoon naa sa delluwaat ci kër gi. Mhm. mais boobu sa yaay xamoon na xamoon na xamoon na ne yow demoon nga. waaw sama yaay tàggu naa ko. d'accord mhm. alors bi nga ñëwee moom lan la la ah xanaa encouragé ma rek sant yàlla tamit. Mhm. xam ne am na ñu dem ñoo xamante ne gisuñu seen doom. Mhm. mais comme yàlla def na indiwaat leen seen i loxo dañuy sant yàlla foofu. d'accord Ndeye Fatou laataa ngay dem yaa ngi doon liggéey restaurant nga dem malheureusement yoon bi métti na ak li nga nettali yëpp ngeen ñibbi si euh, ban moment nga toog vraiment nga rëccu dem bi nga demoon parce que aussi bàyyi nga fi sa liggéey euh, te yaa ngi si doon suturul aussi. waa rëcc bi mooy. Mhm. comme maanaam tey jii sama liggéey. Mhm. du ma ñàkk naa ko. ok ah ci li ma yaakaar boog. Mhm. mais sant yàlla rek. nga xam ne yàlla lu mu def rek looloo gën. bi nga ñibbisee amoo dara loo rëcc amoo lu la gën a métti si sa dem bi. sama dem bi ah ci man boog. comme ni ma leen waxoon rek dem bi aw ma leen lu ma sori xanaa metti na. metti na trop mm. loo xam mosuma ko dund te jàngal na ma lu bari ci àddina jàngal na ma muñ jàngal na ma lu bari mm. Mm-hmm. Mm. am na ñu si bari jàpp nañ ne yoonu gaal euh, du yoon bu adéquat maanaam du yoon bu wóor pour dem ci réew ñeen ñi jàpp na boo dem ba bitim réew demal nga uti visa pour du avion dem rawatina nag nga nekk jigéen côté boobu aussi lan nga siy wax waaw yoonu gaal moom dama naa neexul sax mais ku nekk boo amul lii da jàpp ci li nga am ñun xëy na nag lii la ñu yàlla jagleel moo tax ñu ko doon def mais du pas dara pour rek dem rek jàppale suñuy famille rek moo tax. man mhm. mhm. loolu laa gis. d'accord ban charge nga am lu war a gën a mën a tax tey nga bëgg a tekki kut ko kut pour mën a réaliser say projet. charge comme nan. charge loo xamante ni tey moom moo la teree neraw sa rêve loo bëgg a réaliser ak yooyu. moom fa dëgg fa neex yàlla tey tey tey jii ku ni ma woon visa wala defaral say kayit ma yóbbu la. Mhm. ma def ko ndax man dama bëgg a jàppale samay famille ak sama yaay ak sama maam yi xamante ne si dafa sonn ci ñun sama maam léppam ñun la sama maam ñun tax ba léegi nii avancé wul ndax njaboot sama damaa yërëm sama maam ndax xam nga yar ni dafa metti surtout maanaam mu nekk ak ay moromam dafa metti kon nag yow mi xamante ne si jàngoo yaay mesure yow yaay fexe def le tout pour jàppale sa maam ndax ma sama maam wala sama bàjjen wala sama yaay wala keneen keneen ku si xaj mm-hmm. yaakaar naa bala ñuy dem wala ñu bala ñuy génn àddina. Mm-hmm. sama ñàkk ñoom ñu lekk ko. Mm-hmm. d'accord alors euh, mais aussi euh, jàppaloon ne aussi toog Sénégal liggéey fi aussi euh, mën fay réaliser tekki fi aussi loolu aussi du solution moo gën ñuy dugg si gaal yi dem en tant que jeune. non bu ma loon demaat moom ñaan ñaanu ma ko yàlla pour duggaat ci gaal gi ñaan naa yàlla kay am sama visa dagg sama billet dem yéeg avion dem. comme nag yàlla dogalul loolu naa toog rek. ma xam ne Sénégal lu mu fi am rek ma bokk ak samay famille rek. d'accord kon fi ne nii boo gisaatoon beneen gaal muy ren muy déwén doo dootoo ko doolaati. non non bu ma gisee gaal fa dëgg fa ne yàlla du ma dem mën naa toog fii rek ñu jàppale ma ma liggéey évrici jàppale samay famille. d'accord ñi nga xamante ne kumpale ñoom xamaguñ ko te bëgg nañ koo def ñooñu lan nga leen di wax. ah man ma du ma ni kenn toogal wala demal. Mm-hmm. ku ne yaa jël sa décision bopp rek. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord alors fi mu ne

alors mu ngi noonu ñi nga xam te aussi am nañ yéene euh, pour dimbali ko te yàlla rek tax bu leen hésité mun ngeen koo dimbale parce que émission bi aussi loolu moo ko sabab en tout cas maa ngi lay sant bu baax a baax euh, di la ñaanal jàmm aussi mm-hmm. lépp loo bëgg yaa ko xam yàlla na la ko suñu borom defar ma bàyyi la rek mm-hmm. aussi euh, bu fekkee am na message booy lancé si gouvernement bi aussi si état bi ak si sénégalais yi ñu ngi lay déglu. waaw di wax ni maa ngi nuyu ñëpp. Mm-hmm. di wax ni ku ne li nga sa xol rek. yaa ko xam ndax eh, àdduna kenn du ne la may ma nangam ci force. Hmm. Hmm. nit ki lay may mooy xam yéeneem mais yéen ñi xamante ne si yéen a may déglu. Hmm. képp ko ma mënta jàpp nag ma jàpp te yaar rek tax. gërëm ko bu baax a baax Ndeye Fatou Kebe euh, moom la ñu dalaloon si émission jotaayu immigré yi ñu fekk ko fii si këram fii si diwaanu ñi moom nag géeg ngeen ni ko waxee si biir émission bi en tout cas di ko ñaanal jàmm bu baax a baax di ko aussi euh, encourager euh, yàlla baax na en tout cas pour képp koo xamante ne aussi euh, bonne volonté si gouvernement bi nga bu koo jàppale mun nga woote si numéro boobu nga xamante ne joxe na ko di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di gërëm Babacar Sané moom lay àndal à chaque fois si jotaay immigré yi xam ngeen ne émission boo xamante ne la dina leen permettre aussi ngeen comprendre jafe-jafe yi nga xamante ne aussi ñiy jël gaal gi di dem ñu koy dund waaye tamit am ay euh, saafara euh, pour ñuy jël gaal gi euh, wàññi ko ba nga xamante ni dinañ toog fii si réew mi ngir mën koo liggéey aussi di leen jox dig daje incha allah ba beneen yoon ak beneen invité si Sénégal si jotaay immigré yi mën ngeen woote si numéro jotaay immigré su ko defee aussi ñu invité leen si 77 585 60 54 ba ëllëg incha allah ak keneen si jotaay immigré yi jaa ngeen jëf. Sénégal7.com temps présente jotaayu émigré émission bi leen di jox yaakaar l'émission qui vous donne de l'espoir ndaw ñiy jël gaal gi di dem yoon suuf mbaa yoonu avion jafe-jafe yuy jànkonteel si yoon bi ngir mën a dem bitim réew Sénégal 7 TV moo leen di dëgtal jotaayu émigré yi ngir mun leen jox espoir si réew mi ak si Afrique jafe-jafe yi xale yi di tundu